jël suñu indépendance en 1960 1960 60 ak 80 am eu président premier président de la république buy Léopold Sédar Senghor si ñaari fukki at dañu xalaat ne suñu économie mu ngi basé au si agriculture mais plus précisément si mais soo leen xoolee de xool si ñaari fukki at yooyu fukki at ak ñett dafa am ndóol dafa am sécheresse donc ce fait une économie sur la base est dina mais tay, lan premier produit d'exportation sénégalais Nous sommes en or, nous sommes en diamant sommes en pétrole une puissance militaire mais talent sénégalais yi génie culture loolu moo tax ñu avons fait tax ñu torop ñu manufacture la Nous avons rôle ñu ñëw encouragé indi fii diplomatie ñoom tam ma dënk leen manufacture de Thiès pour que ku nekk sa liggéey bu woon day nga mun a def loolu te suñu weesoo ak diplomatie dañu mun a tey si suba waxtaan naa ak euh, patronat waxtaan avec les clubs des investisseurs ñooñu tam dañ leen war a indi fii pour que manufacture nekk yëfu ñëpp su loolu boo weesoo suñu directeur généraux yooyu ñu nekk fii

culture bi au cœur si politique am bu PSE la provision 2035